Ces agents infatigables de sécurité Vous n'êtes ni tëddee en tout cas di nelaw c'est parce que ma ko waxee sànq gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonente yàlla Muhammad sallallahu Alaihi wasallam loolu damay wax ne lu am solo la parce que li ñuy wax euh, loo loo lo loo yéex a def moo gën loo defut ma jàpp ne kon li président jël dogal baax na mais fàttali ne mbirum emploi ci région bu Kaolack lu yaatu la problème bi yaatu na trop parce que ndaw ñi amul liggéey bëri na état nag moomeewul pour di joxe liggéey waaye day créer conditions yi tax nit ñi mën a am liggéey xam ndax dégg nañu maam déet créer conditions yi nga xamante ni mooy tax nit ñi mën am liggéey loolu daf ko war a créer moom jëm ci wàllu formation dimbale nit ñi ñu am ay projets yu ni mel donc loolu état moom moo ko moom bu ko defee nag yaakaar naa ne dajale ndaw ñi ba fexe ñoom ñu xam loolu dafay am solo maanaam looy def pour man te boolewuma ci demen defoo ko pour man itam loolu loolu tubaab bi wax olof di ko tekkee ci noonu kon ma jàpp ne bu ñëwee def loolu am na solo waaye nag bu mu yem ci loolu rek ñan lañ koy jox ñan ñoo koy yore parce que dañu tàmm fii ci Sénégal euh, xaalis yu mel noonu ñu génne ko waaye duñ ko jox ñoo xamante ni bii war nañ ko mën a yore parce que am na ñoo koy nomee jox leen ko maanaam ba nga leen nomee lañ ko a xam li xew ci base bi xale yi duñ leen jot parce que boo leen woowee téléphone duñ la jot duñ leen duñ la jël duñ jege nit ñi te loolu nekk loo xam ne vraiment lu tax programme bi jóg la programme ndaw ñee ko tax a jóg kon na dem ci ndaw ñi bu demee ci ndaw ñi nag ndaw ñi aussi bu ñu lebee nañ fay dëgg nag nit ki boo koy wax da koy wax dëgg programme boo xam dafa jóg pour lebal nit ñi ñu mën liggéey mais formation bi ñu jitt d'abord parce que bo amé manam financement ta xamono ko yoré financement dafa daal di dikk bu ko défé ay yoon mo ci dugg sék yóbbu fu nek bu ko défé ngay war ta nak nag ku lépp da nga wara fay ma japp né kon bu boba euh nañu nañu nañu jangal ndaw ñi d'abord abord ni ñu mën a yoree yooyu yooyu projet waaw loolu dafay nekk loo xam ne vraiment lu lu am solo la bu ko défé itam nak wax dëgg yalla mu dem ci ñi wara dem ñu bañ ko def clientélisme politique parce que nak ndaw ñu nekk ci parti bari na de ndaw ñu nekk ci parti bari na. te nag ndaw ñi bu amee lu jàpp rek jàmm daal di mën a am waaye bu ñu rek jafe-jafe daal di gën a bëri te loolu nag vraiment ñaanuñ ko fenn lu wér la parce que département bi ñu nekk agriculture dafa yaatu maanaam mbay maa ngi ci càmm gaa ngi fi loolu nag bu ko defee euh, ñu fexe ba fii ci Guinguinéo nit ñi nga xam ne at bu jot dañu bay nañ leen dimbale bu baax a baax ci wàllu boobu waaye itam ñu bàyyi xel ci ne gis nga Sénégal dañu war romb nag yemere sunu sunu mbay sunu mbay rek ci nawet war nañ mën romb foofu noonu bu ko defee yar ak bay lépp war na mën a ànd waaye nag dañ bàyyi xel bu baax a baax àll bi nga xam ne le monde rural bi nga xam ne bu ñu naan bay moom moo tax te dañ ne le retour à la terre retour à la terre nag naam suuf saa fi waaye nag lan lañ koy defee jumtuwaay la laaj na jiw laaj na matériel kon état bi na gën dimbalee ñi nga xam ne moo di jeunes yi pour encourager leen ci mbay mi parce que bëri na jeunes yoo xam tey ñu ngi ci grande ville yi defuñ fa dara boo gisee criminalité bi xaw a yokk ci ren di leen dëkk mag yi ñàkk luñ def la mais kenn ku ci ne boo xëyoon am ci loo jàpp wàccee 5000 wala 3000 francs bu gëdee doo tal dem agressé kenn loolu da ñëw indi ko sa mbir mbokk mën leen jariñ donc loolu aussi nañ ci bàyyi xel baax a baax ci wàllu commerce bi itam ñu fexe ba financé ñi nga xam ne ak artisan yi yëpp nag laay bëgg a wax sax ñu fexe ba financé ñi nga xam ne am nañ ay porteurs de projet waaye nag booy liggéey aussi xalaatal ne da nga war a fay parce que boo fayul ki nekk sa gannaaw du mën a am donc loolu daal vraiment laa na waxoon laa nga xam ne vraiment ñooy euh, aussi bien l'état que les futurs bénéficiaires xam ne moo di suñ di ay jeunes yoo xam ne vraiment war nañ ci am